auzu billaahi mina seytaani rajiim yi bismillaahi rahmaani rahiim ñu sant yàlla julli ci sangu sang yi Seydina Mohamed sant suñu ñaari waajur sant suñu wasila Cheikhul Khadim di leen nuyu di leen ziare di leen baal ak yéen ñi nga xam ne saa su ne yéen a baaxoo toog ci Waarwi TV di jàkkaarloo ñun jiite ci nuyoo bi nag comme Serigne Mountakha Bachir di ko nuyu di ko ziare ak mboolem njabootu Serigne tubaa gépp di nuyu tamit di ziare Serigne Cheikh Jëmb Fall. ak mboolem njabootu maam Cheikh Rafaal lépp mboolem mooy kilifa diina wala kilifa aada ñu ngi lay nuyu di la bu baax a baax tey nag di spécial 8 mars nekk bis boo xam ne bisu jigéen ñi la bis boo xam ne bisu jàmbaar yi la ndax naam jigéen sax chaque jour bisam la at mi yëpp ñoo ko moom waaye nag bis bi dañ ko cee tànn jagleel ñu ko ci Waarwi TV nag jógoon dugg ci biir dëkk bi am fi ay jigéen ñoo xam ne ñu ngi ci dëkk bi sell bi di Touba di jàmbaar di liggéeykat lépp loo xam ne seen adduna rek am nañ ko liggéey moo leen ko may gisuñu lenn loo xam ne état defal na leen ko lu jëm si ci ñoom gisuñu benn benn boo xam ne tamit ay financement loo xam ne jóge na feneen ak feneen yaa xam nitu ki yàlla may ci àdduna la yaa xam nit ki politique la yaa xam ki nga xam ne tamit njiitu réew mi la amul lenn loo xam ne ci jigéen ñi may indi tey jóge na ci kenn jëm si ci moom ku ci nekk rek ce la nga nekk di ca yëngu sag a la ko may ak sag nangoo liggéey ak sag am jom ak fulla te lépp loo xam ne ñu ngi koy def ci dëkk bi sell bi di Touba dafa tënkoo ak wor may dëkk bi kon nag damay ànd sama caméraman ak sama réalisateur ñu dugg fii ci biir Mass Ocass seet war jigéen joo xam ne moom it macha allah ci jigéen ñi Touba la bokk doon jàmbaar te li ma gën a neex ci jigéen ñoom ku ci nekk rek yaa ngi yor sa kër yor sa njaboot ne si biir néegu sëy di sëy teewut yaa ngi liggéey di yaxantu ngir loo jàppale sa njaboot ma ànd ak saani ñu dem marché kaas wala leen jàmbaar jëm fa gis ñu dellusiwaat ci jotaay bi. liggéey bi nekk jigéen nekk waa maa ngi leen nuyu bu baax di leen ziar bu baax di leen jox seen wàccuwaay waaw soxna Maguette de jigéen la buy daan dooleem rek bëgg a tedd dimbale njabootam moo tax ma ñëw fii ci sama càmmiñ lee laa doon jaayee ci buntu palaasam yàlla dogal may jaay ba yàlla dogal ma am benn palaas fii di ci jaay tuddee ko daaru minam soow di fi defar ay caagri ak beñ yàlla dogal ma amaat beneen place mu taqaloo muy ñaari place yi ma forme fi ay jigéen nag jàngal leen liggéey bi di leen sarseel ñuy jaay ñu jaayee 5000 ñoo moom 1250 yi bu ko defee ñu wersi ma li des noonu la liggéey ak ñoom 100 francs yu ñu jaay ñoom ñoo moom juróomi des ñu am 5000 des fois ñu am 4000 mais duñ perte moom noonu lañuy waa noonu la ñoo ko moom waaw noonu la ñuy liggéeyee. liggéey na moom parce que xam nga fëriñ bi bës bi dafa métti xiw bi euh, tey amaguñu kii jënd machine bi bës bi dafa metti ci jigéen te heure bu ñu xëyee dinañ lakk saako wala ñu lakk saako ak xaaj pare takk caagri ñaari poli caagri saar seen jaaykat yu jaay liggéey bu métti la moom amul temps waaye nag àddina dara yombul. te loo bëgg tamit du metti ci yow ndax gëm-gëm bi ngay am moo tax. waaw loolu. naka a génn. waaw moom kay doy na waar ndax euh, farine bi seer na diwlin bi seer na suukar seer na ak meew mi ñu koy defaree waaye nag comme suñ métier la mënuñu koo bañ. amoo leen benn financement boo xam ne daf lay jàppale wala sa dooley bopp rek. non rek la ñuy liggéey waaw amuñu benn financement. comme ministre de la euh, ah. gisaguma ko ci de xëy na mën naa am nag dina dox ba te tequñu waaye gisaguñ ci suñu bopp ñun nag ay ndaw la ñu nekk fii Touba di liggéey di daan suñu doole. Euh, jigéen ñi dañoo dugg ci biir dañuy tisaaroo ñuy beñe la ñuy saase ñuy caagri ku nekk boo ñëwee yaay xool li la li la gënal nga saase ko. yaa ngi sa biir sama biir kër di jot njaboot waaw dañuy defar tamit ay ornet ku am xew boo ñu woowee dañuy def place wu ñëw ornet ay xew màggal wala nga am ngénte daw ñu wayalal la soo defaral la ornet ba mu baax daal ay jigéen lañ daal ñuy daan suñu doon jigéen ñi nag fii mën nañ 30 amoon na ay góor nag waaye xamul góor ñi moom euh, dañoo xaw a wàññeeku waaw bëgguñu jigéen jiital leen daal loolu moo tax ay seen bopp daal ñoo fi nekk léeg-léeg nag xam nga ñi ak yooyu mais bu ñëwee ñoom ñëpp mën nañ 40 personnes waaw. Ah. bu nekk macha allah bu ah. mm-hmm. di liggéey wax dëgg fa yàlla ñoom tamit ñu nekk ay jàmbaar yoo xam ne ñu gëm seen bopp lañ bëgg nañ liggéey trop parce que man ku bëggul liggéey doo yàgg ak man tax su may liggéey moom liggéey rek laay gis su ma ci paree nag nekk ci leneen. waaw sama mag bi ma bokkal ndey ak baay sax bu ñuy liggéey cadre liggéey bi rek la ñuy indi suñu paree nag doo ko xam ne leen. waaw bi euh, benn gaz bi ñaata fan la lay léeg-léeg mu am 3 jours 4 yooyu rek lay am. daal soxla waaw waaw ku ñu jàppale moom ñu jël soxla nañ ay ndimbal ak ay financement waaw. ñu jàppale ñu jël ay jigéen yu daan seen doole daal di góorgóorlu lañu jigéen nag xam nga lu mu góorgóorlu góorgóorlu ne am lu des bëgg nañ ay cuisinier bëgg nañ ay machine yu ñuy xiwee bi bëgg nañ euh, yoo xam ne ni meew ak suukar rek loo xam ne financement lay doon ndax des fois da ngay woyal ba pare mu échec bu boobaa boo amul doole jëndiwaat beneen saako saako bi mi ngi jar cinquante cinquante mille yu manqué tuuti deux mille lañ ciy delloo mille francs saako farine di jar dix-sept mille cinq cent bureau diwlin fii ne moom mi ngi jar ñetti junni ak juróomi téeméer xam nga loolu tamit dafa xaw a seer. waaw asalaamaaleykum maa ngi leen nuyu bu baax di leen ziar di rafetlu si ñëw ñu fi ñëw tey seet si ñu tey soxna Maguette nag daa nekk nit ku baax ku am jom bëgg ah, ku bëgg kuy liggéey daal waaw wax dëgg yàlla am ñu fayal ndax ñun chaque jour dañuy ñëw fii. bu changé ñu bañi boo ñëwee loo loo jaay ah, la am ko yóbbaale bu mu sa faraama xaalis kenn loo la si li muy def moom 8 mars bi lan lan ngay wax lan bi naka a taxawaayu jigéen ci ci Sénégal ak ah. ñëpp ñoo nekk suñu kër di sëy di liggéey te wax dëgg yàlla liggéey bi moom daa xaw a na bagage cher na ñun daal bu ñu sañoon daal ñu jàppale ci bagage yi daal defal ñu may ñu ay machine yu mën a kiwee ci beñe bi ndax dër bi da kii bi da fii bi dafa xaw a met diw tam seer na farine bi seer sugar bi seer ñun daal ñu jàppale woon moom wax dëgg yàlla ñu dem ndax màggee fayn li muy def saa moom du ci am dara ñi muy liggéeyee te yow war moon say sa bi ñu këpp wala dara moom moom mooy jël engagement fay la nga dem sa yoon xam nga loolu la ci moom léegi bu ñu amoon ko jàppale nag bu baax matériel affaire yooyu nga xam ne lu mu jaay tam dina si a am dara mu dëgg yàlla mu ngi jàppale société bi ñu ku woon moom mu ngi jàppale jigéen ñu bëri waaw macha allah ñu ngi koy ñaan bu baax ma man dafa ku liggéey moom man mii di wax ak yow sax su ngoonee dana ma dama toog fee jox ma farine yëpp dama ma xaaj dama jënd ay saabu yëpp ma teg fii sama taaw di jaay moom kuy liggéey rek la la la bëgg dëgg yàlla mi ngi jàppale ñun ñëpp ñu ngi koy ñaan bu baax yàlla jàppale ko jubale ko ak borom këram may ko xéewal bàkki Sëriñ Fall nit ku baax la bu xol vert mbàgg dañ naan ko yow li ngay liggéey doo si am dara yow ñu ñi ngay liggéey waaw ñu ngi koy ñaan bu baax ministre bi nag nañu jàppale bu baax jàppale ko bu baax ndax instant yi moom soxla nañ ndimbal lool te gars yi ñuy si àll bi ñu ñoo ko gën a soxla si ñeen si def ndax am na ñoo xam dañ leen dimbal te duñ def dara fii ku fi ñëw xam ne ay liggéeykat ñoo fi nekk instant yi ñi ñoo ñëpp dem si biir sax mais bu ñëwoon ngeen fay ne ay jàmbaar kese ñoo fi nekk جليل كفاة الكيد والدر والولم زمامي بأيدي جند دار ميلنا زبي الجار والتدليل هونا من الغلم إلى نفسنا قد ساروا مخيولهم waa ah, asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi leen nuyu bu baax te di leen siyaare man la soxna maam jaara jigal maa ngi leen di nuyu te di leen gërëm nag bu baax ci ñëw bi ngeen fi ñëw te nag mu doonoon luñ yàkkamti nag ndax te soxna Maguette gay mi moom dafa doon nag koo xam ne dafa sës ci bëgguñu lool nag macha allah bëggut nag kenn ku tëdd boo nekkee sa kër sax nag te defoo dara lay woo téléphone toujours naan la ñëwal liggéey ñëwal liggéey ñëwal liggéey ñu koy ñaanal nag bu baax a baax. ca la muy sàkk ci bor kër borom këram dee mu am ko ndaxte man de damay sarseel ma jaay su ma ñëwee lu ma ca am mu jox ma ba pare nag day day yëkkati sax nag alalam leneen loo xam ne yow liggéeyaloo ko ko di la ko jox ñun ñu koy sant bu baax di ko gërëm bu fekkee buñ demee ba xamul xaalis ba mën a faj suñuy soxla yàlla ak moom tëdd ñu ngi koy ñaanal nag bu baax a baax ci société bi mu jëm ca kaw ca kanam ndaxte nag jigéen ñépp meloon ne moom wala ah ñëpp mel ne moom rek kër du sonn ñu koy ñaanal nag bu baax ñun nag dañoo mën a wut wax nag moo tax kontaan nañ ci moom. waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di leen ziare soxna mooy baax rek bëgg boppam mën a liggéey jigéen ju góor daal laa gis sama rakk la nag waaye wax dëgg yàlla sama rakk ju ma bëgg ju yërëm la woon na sëñ Tuubaa bu gisee dara bala kaa yéene boppam mën la ko gën a yéene waa yéene boppam lenn lu man daal. ma koy ñaanal daal mu gudd fan ak wér liggéeyam bii nag teg na ko ci yoon sellal na ko xam naa ne moom ku bëgg lu sell ca neex rek ñëwal ci moom moom bëggul bénéfice bu bari xam nga lu mu bëgg client ak nit ñi di lekk lu neex wala di dem ci lu civilisé loolu daal la bëgg waaye boo waxee dama amoo ci waaye moom mu ne ma man wutuma lu ma ciy am naa def lu neex rek su ma defee lu neex dinaa am nit ñi waaye daal liñ koy ñaanal daal mooy gudd fan ak wér ak liggéeyam bi fu mu bëgg mu yegg fara ko fa loolu daal laa xam ci màggal jalaali bi maali baana fi haami laysa sin jalilun kafaanil kayda wa durra wal walam Jamil

dañuy neex rek te jar waaw te sell waaw sell na neex na jar na waaw waaw looloo tax ma jëndee ma. beñe fii dinañ defar beñe dër dinañ defar raw bi xas bi dinañ defar tamit viande bi mooy mag yi nii may defar nii yooyu nag moom épicerie yi ñoo faral di ko fi jël si ñoom lañ koy libéré fii ci marché Ocass ak. waa ñoom dama am li wëral ñoom moom moo ko yóbbu am taxi boo xam ne nii moo ko yóbbu ci ñoom di leen ko jox. léegi benn paan bi boo doon bañ paan bi nga am na bu 25000 am na bu 30000 ça dépend am na bu 30000 am bu 25000 am bu 15000 am siwo bu 10000. sooy benn bi mooy 10000. waaw bu dee paanu grand gaal bu mag bi 30 mille bu dee paan bi ci topp 25 mille bi ci toppaat 15 mille noonu lay demee sandi paan bi nga bëgg rek loo bëgg moom soo ñëwee fii lu sa xaalis toll rek dinañ la defaral lu toll noonu soo commandé ba 100000 ba 200000 dinañ la ko defaral bu dee ay événement màggal yi dañuy defar lu bari def ko réservé bu ñu xëyee waaw waaw sama numéro la. waaw. waaw